mucc ayib si clôture yi forum waaw loolu yëpp suñ koy def pour la jeunesse yaakaar naa leneen war naa mën a nekk suñu xel ak suñu xalaat lu dul violence donc ñuy ñaan yàlla vraiment yéen ñi nga xam ne yéen ay relais yi ngeen jàppale ñu si message yi pour que jeunesse bi mën a comprendre que jàmm si la lépp xaj te Sénégal jàmm rek moom